aw tiis ak aw naqar fees dell ci mbokki togor yi rawatina ñi nekk ci région bu Diourbel waaye fii ci diwaan bu Touba kiinu miinoon lool ci wàllum reetaan loo nit ci xarala yu bees yi di tok ñu gën koo miin ci mbay sàppar sàppar moom mi la dey moo amal ak l'accident ci suba gi ci yoonu ndindi bi ci lu soriwul dara gaaraasu daara jolof moom mi dey ci daamaar gu yoroon na ko moo mujjee saaran ba ñaari élèves jot cee ñàkk seen bakkan moom mi de ci ginnaaw gi lanu mujjee xamle ne dafa mujjee faatu kii di mbay sàppar sàppar nekkoon nag ku nu miin lool ci wàllum internet bi ak ci télévision yi mu nekk ku daan reetaan loo nit ñi moom mi de di jëm ji di mbay sàppar sàppar ñëpp mii nan ko lool moo mujjee wuju sunu borom ci naa bu am na ko ci yoonu ndindi bi lu soriwul dara gaaraasu daara jolof moom mi de dem na tey bàyyi tiktok ginnaaw di ko ñaanal yàlla sunu borom xare ko àjjana yi gën a kawe bi jaahil Mustapha.